njiitu réew mi son excellence monsieur le président Macky Sall dalal démb kuréel gi ngànk juróom-ñetti bànkaas yi lëkkaloo ngir xeex lépp lu jëm ci wàllu Sénébar ci tàggat yaram bankaas yooye di ay ndaw yu teewal juróomi continent yépp gannaaw ba ñu jógee seen ndaje moome ak njiitu réew mi tey ñu amal seenum ñaareel bi waxtaan fii ci hôtel Pullman mom monsieur le ministre Matar Ba nekk le chef de cabinet du président Macky Sall ñëwaat ci nimu gëna gën ci solos ndaje ma. di sante yalla bu baax nak parce que suñu réunion bi ñu dajal ni te muy réunion bo xam ñaareel bi yoon la ñu def ko ci Afrique ñaareel yépp Sénégal la kon lool moy woné né président Macky Sall engagé na réew mi pour que ñun ñëpp ñu japp ci xex cinébar xex li nga xamante moy jëfëndiko lu ñu ci tàggat yaram defe naa ne réewu Sénégal ba ko président Macky yore ba léegi li mu jot a def ci investissement ci wàllu tàggat yaram ba ñu commencé gis trophée yeeg loolu du foofu rek la def investissement parce que man mii nga xam ne may représenté Afrique ci bureau bi muy la COP liñ ci def jot a def ak taxawaay biñ ci jot a am ci ndigalu président Macky Sall lañ ko am ba ñuy dem ci COP 9 bi nga xamante ne Afrique moo war a jël njiit li. te jàpp nañ ne Sénégal a koy jël parce que ci loolu la ñu liggéey ci loolu bi ñu président recevoir démb li ko monde bi yëpp wax parce que ñii fi nekk nii c'est le monde parce que dañu tas continent yi par cinq muy cinq continent continent bu mu nee dafa am ku ko représenté tey Russie ngi fi Asie ngi fi Afrique ngi fi Europe ngi fi aussi ñëpp a ngi fi kon lu ama am solo la loo xamante ne li ñu ciy wax ak li ñu ci liggéey Afrique moo ci war a jiitu parce que bu ñu bëggee ñëpp di def tàggat yaram te kenn du ci jël produit boo war jël loolu moom mooy tax xele yi am wër gu yaram loolooy tax it compétition yi am njëriñ kon bu ñu xoolee ni population Afrique tëddee nga xam ne ndaw ñi ñoo ëpp mag ñi te ndaw ñi ñëppay def tàggat yaram defe naa ne réew mu ne war naa soob loxoom ci xeex lépp loo xamante ne drogue la ci wàllu tàggat yaram. ndax lii di dopage di jëfandikoo Sénébar ci tàggat yaram am na ci sunu réew mii di Sénégal waaw wala déet moom monsieur le ministre Matar Ba andi na ci ay leeral. ngir ñu mën a gindeeku ba xam ndax ñiy jëfandikoo tàggat yaram ci réew mi ñu ngi koy booleeg leneen lu ci bokkul wala déet. dopage xam nga du ñu ne mu ngi fi mais mënut a ñàkk parce que am na ñoo xam ne comprimé la ñuy jël waaye am na ñoo xam ne sunguf la ñuy jël am. loolu mom moy suñu tradition té am nañ fu nek sport traditionnel motax tax lepp ñu war ko encadrer ñu ngi def test lamb ji sax lamb bu amé mbeur yi dañ leen di tester avant et après gis ngeen ñuy jël seen i saw pour mën ko étudier gis ngeen fas yi daw sax fas yi di daw ni di course sax de bo gañee ba paré dañ lay tester balaa ñu la jox raaya donc loolu lepp bokku na ci li Sénégal tek ci ci place bi

ñaari téméri réew la té sénégal moy représenter afrique kon japp nañ né sénégal mu ngi duggat ci yenen chantier chantier yo xamné dañ ci lekkolo tagat kat tay ñi nga xamné ñoy taskati xibaar yi mu yenn mais lekkolo ci ak njiti réew yi président Macky Sall joxal na ndigal né dina ci japp waxna ak ndaw ñi waxna ak ñi nga xamné ñoy bureau bi né dina ci gën bok ci ñi nga xamné ñoy gaddu sensibilisation bi parce que nag xeex bi buñ ko bëggé gagné amna détermination mais nañ jaar ci sensibilisation bokku ci nak xam sa cër ci xex bi su ko defee mu gëna a efficace.